ملاذ الناس في دين ودنيا بذول دون من بالنوالي شجاع بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ومن والاه am na ak xol naqadi la ñuy tàmbale jotaay bi ndax xat-xat yi fi jaar ak yi jeexagul ci semaine bi ñu nokk xëy na sax jullit sañu ta wax naqadi wante xëy na mettit muy suñu najaay bu baax bi di najaayu wa New York yëpp tonton tonton Waly Mody Ndiaye xam naa xëy na ñi nekk ci platform bi ñëpp xamuñu ko wante li wolof di wax ne ku xamuti dégg nga ko ndax yàlla ak mbaaxam Eh, daan ngeen dégg Youssou Ndour di woy Baye Waly Baye Waly mos ngeen ko dégg xam naa ñoom Yacine ñooy dégg yooyu Yacine mos nga dégg lool. waaw. ok Baye Waly moomu Youssou Ndour daan woy nag mooy suñu Baye Waly mi. Hmm. mosuma gis ku ko gën a baax. mosuma gis ku ko gën a dal. mosuma jis ku ko gën a organise mosuma gis it ku ko gën a woyof gën ko serviable gën ko généreux ci côté yëpp nag ci xalaat ci xam ci alalam ci darajaam mosuma gis it ku gën a xam boppam ah, xam sa bopp mooy tax fi nga war a tuuti nga tuuti fa fi nga war a rëy nga rëy fa ndax boo toroxloo ci kanam ku ñu war a toroxlul yàlla def koy sopp waaye am na fu nga xam ne <coughs> boo fa tuutee rek àdduna dafay tukki loolu nag ku ne ci war a bàyyi xel rawatina ñi yëngatu ci diine xam nga imaam Malik mi nga xam ne mooy suñu sëriñ soo ko fekkoon këram di ko laaj masala lay laaj ndax masala fiq la wala xadis la su dee fiq la mu tontu la su dee xadis dafa dugg ci biir néegam eh, sangu wala mu jàpp sol yére ya gën rafet laal parfum ñëw toog toogaay ba gën a yaru pour soog la pour tontu la su daan jàngale ci jàkk yonantu sallallahu alayhi wa xadiisu yonantu du toog mukk toogaay bu confortable dangay ngay gis dafa sëgg lu ñuy wax lunk ba nga foog ne dafay bëgg a daanu ngir teggin gi mu am ci xadiisu yonantu sallallahu alayhi wa wante bu demee ci jotaayu buur yi mbaa buur yi seet si ko beneen Malick ngay gis ndax la mu yenu moo tax bés agsi na ci jotaayu al te booba mahdi moo doon amirul muminin moo doon xalifa jullit yépp buñ ne xalifa booba nag mooy ki nga xam ni mooy chef de l'état wala mooy buuru al imaara al islaamiya penku ba sow eh, naka lay yegg si jotaay baa ngi ku nekk ngi toog Malik bu ko bu fekkoon ne ku xamul la mu amee la wala koo xam ne toroxlu bu foo la yore dafay toog rekk ca fa jotaay ba yem ci suuf daal dina yonantu yegsiwaan ci jotaay dafay toog fa jotaay ba yem fekk ak jotaayam fekk ak jotaayam ndax yonentu du dem ci jotaayu buur di toog ci suuf risaalatom di suufee nguur ta Malik xam xam yonentu la yenu alayhi salaatu wasalaam naka la ñëpp di xoole rek mu ne ko ay na yajlisu cheikhuka yaa amiral muminin yow amiral muminin na fu ma fu sa sëriñ di toog loolu la ko amirul muminina daal di suufe ndawal jotaayam daal di puus ne ko kaay toog fii ci kaw sama wet Baay Waali noonu la meloon mas naa gis ku ko wax ci zawiya bi ne ko Baay Waali yow xoolal ni nga béjaawe mu ne ko lu ciy sa yoon <laughs> lu ciy sa yoon doo doo lijjanti nekk <laughs> maanaam eh, te du ko wax nag ak ba pare jàpp ko daf lay wax lim lay wax fekk dëgg la ci moom bu paree pare na ci waaye dëgg fum ko fekk dina ko wax noonu la ko yàlla bindee woon ànd ak yar ba ànd ak dal ga ànd ak tey allah euh, sëñ Faale ngi nettali ne am na benn jamono ñu war a luye benn barab boobu amaguñu zawiya bi am ku ne ci jotaay bi moom xam nañ ñu ko moom buñ bëggee sax jënd mën na leen boole ñu ah, kon àndal ak faali ak waali ngeen dem fa seeti ko suba te faali moo doon waxaale affaire location bi kooku ne xam na ñamoom moom affaire ba bañ demee nee na Brooklyn ndekete waa ji lim daan wax dara du ci dëgg xamut leen sax te ñooñu jaayuñu far nee bi ñuy ñibbisi ci oto bi bàyyi waale ñu toog ba ci kanam mu gestu waa ji ne ko waa diw yow mënoo bàyyi fen <laughs> mu ne ko ya bàyyi waale mu ne ko déedéet fen baaxul noonu la daan waxee fen baaxul waaw la daan waxee mosuma gisit ku mën a togg comme moom bu fi bàyyi tafsir saaxo ñëwee ñu fa daan dañ fa demee moo ñu daan toggal ndax nee na chef la ba muy nekk fii nag mi ngi doon liggéey ak ah, waa NYU ci wàllu traduction entre l'anglais et le français et l'espagnol mosuma gis ku yiw comme Baye Wally mosuma ko gis waaw ba nim fiy jógee yiw set bari yërmande baax bi ma koy mujj seeti hôpital xawul sax mën a wax waaye mi ngi def ay geste ma foog ne dafa am lu mu bëgg wax te làmmiñ bi ñëwagul booba mi ngi jógee ci comment bees ndekete Baye Wally dafa bëgg ma takk sama sama masque loolu la may wax ma ne ko Baye Wally yow daal wallaay noonu la meloon al na ko yàlla may yërmande yàlla may ko aljanna nekkoon ku yiw ku baax euh, jóge na fi mi ngi yegsi na Sénégal tey lay yegsi Sénégal incha allah ak Air marok defee suba ak jàmm lañ koy denc ca Rufisque gannaaw bu mbokk yëpp dajee fii euh, ku la gën a xër ci mu euh, dem na mu war a demee nga ne la lu ñu wax rek balaa ñoo pare kenn ne maa koy def loolu it yàlla cëral cëram la woon bi muy dund sax noonu la meloon lu lu ko nit di defal dangay ngay yëg cawarte gi muy gi ngay am ci defal ko ndax moom noonu la baaxe waaw su ma ko su namee nag dafay woo sama goro rama ne ko waxal diw ne ko dama ko namm parce que man léeg-léeg sama téléphone bi maa ngi noonu bu ma bu ma ko jotee nag mu ne ma ba sàngam laa bëgg nga ñëw fi après timis booy ñëw nag nga indiwaale dibi ñu reerandoor <laughs> Eh, ndeysaan yal na ko yàlla may yërmande doon xarit di cheikhu sëriñ Mansour nag bu alaaji Abdul Aziz ndax alaaji Abdul Aziz da ko yar mook sëriñ Mansour mosuma gis ku baax tamit comme sëriñ Mansour ñëpp a yàgg ñàkk waaye moom mooy ñàkk ak waa kër Cheikh Alhaaji Malick ndax waa kër Cheikh Alhaaji Malick kenn xalaatul dikk New York te daluloo kër alaaji Wali bu ñu la dalaloon hôtel bi gën a nga ne ci bàyyiwaale lay dal kooku cëram la woon yàlla na ko yàlla may yërmande may ko aljanna ملاذ الناس في دين ودنيا بذول دون من بالنوالي شجاع